yooyu lay doon parce que mën nga ñoom ñaar ñëpp ay technique fee ñoom ñaar ñu ay bëri kër lañu nga amul tey ci dem mënul ñàkk waaye tey Zoss dafa ñëw pour bëre ak moom parce que mbër bu fekkee ne daf la daan yàggul daal ñu jox la revanche boo dellu see da ngay andiwaat attitude kon donc tey moo tax mu changé stratégie moo waral mu bëree nii mu bëree waaye yàlla dogal tey jii combat bi demee nii nga xamante ne nii la demee Balla. liñ fi gis moom lu rafet la suñu réalisateur mi ñu koy wonaat nii victoire Zoss. waaw gis nga song bu njëkk baa ngoog waaw bu njëkk bi boo xoolee. Ah, ah, fii bàcc daanu na mais arbitre bi sifflewul. waaw sifflewul mu continuer action. fii boo xoolee Zossam na katapi mu jógaat yëkkati ko continuer action lem ko bés ko nooju ko mu toog. mais ci action bu njëkk ba Malick la combat bi leeroon déjà. ci la leeroon waaw ci action mais foofu arbitre bi sifflewul. exact dañu taxaw parce que fii. Mhm. a ah. bu njëkk bi. ci action bu njëkk ba. mooy action waaw ci la ci la leeroon nañu. donc yaakaar naa ni li nga xam ne li nga xam ne li nga xam ne Zoss wane na ko fii tey nekk na lu rafet ndax am na tey victoire boo xam ne victoire bu ñuy rafetlu la ci bis li nga xam ne mooy gala bu mag bi. waaw damay sant yàlla rek di julli julli sant bi di sant samay maa yi samay ñaari waajur Sénégal bi yëpp. Euh, di leen wax ne dama ñëwoon pour confirmer rek parce que sama yoonu làmb pour man leneen a ko war a mën a gérer quoi parce que yàgg naa bëre am naa fi ay archive RTS am na samay archive boo leen tegoon sama archive waa Sénégal dañu xam man maay kan parce que yàgg naa bëre maa ngi di remercier ñu ma yëpp ñu jàppal ñoom grand Ibou Sylla euh, maa ngi remercier ñoom major Meng ñoom Tafsir présidence ñëpp ñu ma xam ne jàppale na ma sama combat bi. Euh, waaw dama bëgg de président Satan damay jéem a remercier ñun a. waaw man xam nga remerciement yi ak ak ci ak ci naaj sama combat da ci jàpp jox ma si jox ma seen xaalis jox ma ay ñoom gannaaw la ñu xaalis yu bari pour ma gérer kon c'est normal ma féliciter leen quoi. mais foofu la woon waaw félicité ah. parce que combat bi xeex bi bariwul te it génn la man combat bee baax dama doon nelaw. makam xam naa ne ma doon nelaw ko baalee passé. waaw bi non parce que ku ñu naxoon daaw ku ñu naxoon xaw ma daaw xaw ma ni ñu koy waxee. parce que yàlla moo ma dimbali tey maa ngi koy sant sunu borom sant samay ñaari waajur. bés jaar-jaar yu métti la. waaw da nga jógee ci defet sa diggante ak bàcc. noonu yaa bëri woon ñu ngi dee waay. waaw Lac de Guiers daan la. waaw ñu nga dem sa bari da ngay bàyyi bëri. waaw lan moo la delloosiwaat ak lu tax nga ni nga xaru rek ñu bàcce. dafa xam ne su ma dawoon rek nekk su ma rek nekk ragal. waaw suma voyage woon ñëw Sénégal sax du ma am pas am pouvoir parce que man man vainqueur laa dama bëgg am sama indépendance bopp te maa koy xeexal sama bopp bu soobee yàlla. léegi dama bëgg ñu delloosiwaat combat bi du début à la fin nga xool li nga xam ni Je nga bëre sa diggante ak Bac Seras voilà combat baa ngi nii xaaral ñu indiwaatal ñu ko voilà Si, ngeen kii mu jëm la boot. ak a ñëwal waaw dama jëm a boot fii ma plaqué ko quoi parce que ma ko épaulé. parce que fii. lu tax nga continuer damay imposer non dama bëgg arbitre bi lu leer la lu lëndëm lay bañ ay ñu naan daan na ko ak daan na ko loolu moo loolu généralement dama bëgg a daan quoi confirmer gis nga daan jëlu bi rek gis nga yéeg si kawam xam nga laa ma ci jeex quoi franchement. ci daal laa ñaan yàlla quoi ah. lan ngay wax waa parcelle. 1 ba 26. 1 Sénégal xam everybody any town town yëpp xam maa ngi bëggee quoi sant yàlla bu baax ah. ok merci. merci kon nag. Euh, mbokk yi gis ngeen li nga xam ni moom moo am fii ci stade Demba Diop ki nga xam ni moom moo gagné nag mooy 77 536 47 79 Famba Bango bàcc dafa dóor Jos euh, juwaloo ak moom jël ko bàcc añ ko Jos jëlaat bàcc jéem a dóor li nga xam ne mooy mboot zone Jos jël ko plaqué ko fii mu daanu bi mu daanoo arbitre bi sifflewul ñu continuer fii Jos moo féete suuf am cas d'appui arbitre bi waat ñu continuer waat bi ñu continuer jos continuer pour buus ko ba mu toog foofu yi tamit bàcc a loxoom ni lan moo xew arbitre yi daal di joxe victoire ki nga xam ne moom moo di jos kon jàpp nañ ni jos jël na revanche am ci bàcc seras ñu bàyyi bàcc mu waxtaan. waaw kon euh, Malick ñu déglu après bàcc euh, seras ndax dafa war a ñëw pour am loo xam ne dina ko war a leeral waaye nag. Euh, yaakaar naa ni bala mu ñëw baax na tuuti euh, ñu gis li nga xam ne xew na fi euh, force de l'ordre yi ñoom ñu ngi noonu di assurer sécurité bi wax dëgg yàlla bëgg jàmm ak salaam rek am ci ginnaaw bi nga xamee ne combat bi jeex na ci diggante Zoss ak Bathie Seras ñu gis nag euh, Bathie Seras nga xam ne moom mooy ñëw nii ñu war ko déglu ginnaaw bi nga xam ne bëri na ak Zoss Malick ñu déglu ki nga xam ne mooy Bathie Seras voilà bàcc mi ngi nii toog dama bëgg euh, Omar Ndiaye indilaat ma combat bi ñu seetaan ko ndànk parce que voilà combat baa ngi noonu ñu ñëw première action baa ngi noonu. ah dernière dernière action la. xaaral defal ndànk defal ndànk defal ndànk. waaw première action bi. waaw première action bi noonu. waaw première action bi. waaw. arbitre sifflé wul sifflé wul léegi ñu jógaat. waaw yeggali ko non non non il donnez-moi l'intégralité du combat jox ma intégralité combat bi voilà mu ñu tey rek fii da nga door mu jooloo u jël nga bañ sol ko tëgg mboot foofu mu jàpp sa tànk kii jël am na. arbitre sifflé wul d'accord arbitre sifflé wul. kon jël amul. arbitre sifflé wul d'accord gars dafa d'accord dafa wax li nga xam ne moom la ñu gis. waaw waaw arbitre sifflé wul. ñu continuer action. non non non doucement doucement doucement doucement doucement doucement moo ko doucement indi waatal ma combat bi intégralement. déedéet dafa ndànk bàjj man liñ ma jox ci image rek laa mën a commandé ñëwal ñëwal fii gis nañu. waaw léegi fii àll woon léegi fii àll woon. voilà ok doucement ba fii la waaw fii. Abra bi sifflé wul ngeen continué. fii nga nekk ko bu am ñaata appui dafa ndànk. bàcc calme toi calme toi calme toi li ngay wax ni li ngay wax nii moom laa commenté léegi. man man de nag soo gisee bi ma bàyyeeku. bàcc maa ngi woon arbitre bi jël am na bu yàgg maa ngi def ni arbitre. dama ne doucement dafa am ñaari mbir yu am. da dóor. sa waay jooloo ak yow jël la plaqué la fii ci sama gis-gis Aliou doucement jël am na fii mais arbitre soufflé wul donc l'action continue ñu continuer bi ñu continuer mu jàpp sa ndig nga wëlbatiku fii nga laaj ko mu am carte appui mu am carte appui jël foofu dafa ndànk bàcc carte appui waaw man voilà voilà voilà voilà Malick euh, bi mu wone action yam action bu njëkk bi arbitre bi sifflé wul foofu Zoss moom moo daan arbitre bi continué bi ñu continué bàcc plaqué Zoss mu am arbitre bi sifflé wul waaw moom mooy quatre appuis yi kon dafa am ñaari jël yu am jël bu njëkk bi Zoss moom moo daan arbitre sifflé wul ñu continuer bàcc samp ko mu am quatre appuis foofu bàcc moom moo daan ñu continuer arbitre bi sifflé wul Zoss amat euh, beneen jël foofu kon dafa am ñaari mbir yu am am na erreur d'arbitrage parce que arbitre sifflé wul bi Zoss jëlee bàcc seras plaqué ko fii bàcc seras daanu na ñu continuer arbitre bi waxul dara fii sos daanu na am na quatre appuis ñu continuer arbitre sifflé wul ba tey bi ñu continuer sa waay wëlbatiwaat ko naaj ko mu toog fii la arbitre bi joxee verdict kon am na ñaari mbir yu am ñaari jëll moo am wala ñett jëll bu njëkk bi sos moom moo daan bàcc seras jëll bi ci des arbitre sifflé wul bàcc seras moom moo am euh, victoire ci kaw sos foofu sos quatre appuis la def ñu demaat arbitre bañ a sifflé Zoss continuer action, dans le temps de battre Seras li am arbitre jox ko verdict il y a trois choses première chute en faveur de Zos. deuxième chute en faveur de battre troisième chute en faveur de Zos. l'arbitre a donné le verdict à Zos, kon Zos m'a dans daan battre Seras. Malik, je crois que li nga ko décortiquer a na ni. Euh, li nga xam ne am na liñ a wax rek l'arbitre Malik reste maître du jeu arbitre bi ci décision daal di ne Zoss

Dabo mi ngi toog ci plateau bi di ñu xaar. waaw Abdoulaye bu fekkee ni amul dara loo laaj rek ñu récapituler. Hmm. no non non waaw lu ma laaj xanaa ngeen récapituler rek euh, daal di antenne bi parce que euh, demee am antenne bu rëy nga xamante ni euh, mu ngi ci combat Yekini ak Baboy kon nag li ngeen noonu mooy temps fort nga xamante ne moo amoon tey ci stade.